yàlla bu ñu sant yàlla wax wax alhamdulilah li ko sabab mooy sant yàlla rek am réew it boo ca nekkee ba yàgg yëngu-yëngu yu bari tépp tépp ci bari war nga dellu ca ca suñ maam yi daan def surtout ñun suñuy maam jàngati alquran lañu woon moo tax ñu ñëw xëy ubbee jàng alquran bu gàtt gàtt jàng nañ ci lu mat ñeent fukki kaamil am na ko jàng 28 yónnee ak liñ fi jàng kon dañuy jàng kaamil yi ñaanal réew mi ñaanal suñu mag ñi ñaan suñu mën a xaw ma yàgg ñaanal suñu liggéey maam jàmm man mobilisation ñàkk ko woote la ñuy wax waaye saa moo ko wootee rek dinaa ko am ni ko bëggee ni ma ko bëggee ndax du ma wax lu nga xam ne nekkul ci man nit du ma wooy jëm si ci man ma bañ koo wuyu nit du ñëw ci man itam wax ma soxla ma man ca dara bañ koo def kon yaakaar naa su ma wootee rek danaa am li ma bëgg ñun du lu ñuy wax suñuy wax wax tuuti na ci dafa am ñu ñu ngank rew mi wara wax ñoo ñu suñu waxe luñu wax rek ñun dañuy ànd ci loolu tey wax nañ ko suñu leader la ñun kuñ sañaan mo ñuy jiite parce que li ñuy def mom lañ ci andal li ñuy jariñ ci mom lay joggé kon suñu sañaan mu nekk suñu candidat keneen ku bëgg tam da nga bëgg ngir ngir ñanga andal ñun kin andal ngir li ñuy jariñ mom la ñuy bëgg ngañay yalla moko yor noo koy ñaanal rek sa bu démé élection bu wu Touba mu gañe fenen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 buntu ministère bu ne tamit ma dem taxaw ko parce que sama dignité mayu ma ko sama liggéey mayu ma ko li ma bëgg daal képp ku nga xam ne yaa ngi bëgg a président fii ndam nga xam ne man bëgg naa liggéeyal président te maa ngi ciy def sama loxo amul guddi na amul naaj loolu wax naa ko bi wax ci samay wax xaaruñu ci président xaaruñu ci ministère